tënku xabaar yi amati na solo na mu daan amee solo wër nga àdduna de. waaw waaw xam nga dama doon. Ah, le tour du monde en en combien de minutes. le tour du monde en cinq minutes. waaw corona bee tax. oui kon yow dem nga fi Amérique. l'actualité oblige dem nga fi Europe. waaw dem nga fi Asie. waaw oustaz dem nga fi Afrique ba dellu si nii Sénégal. waa gis nga de xanaa xam xamoon am xel fi gën a gaaw. xel oustaz macha allah. Ah. non macha allah yow tamit <laughs> xam nga yow da war quoi da ngay jékki-jékki génn foo xam ne fii. waaw maa la ko wax kenn kenn génn la foofu. quand même ah, ah. mais man man war a régler quoi quand même. benn instant mais da ngaa da lëj <laughs> mais maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. mais maa ngi lay ziar bu euh, baax Nicolas. Euh, euh, oustaz maa ngi takk sama masque mais gisuma nga takk sa masque. waaw man day waaw am naa ko nag. waaw ah, déet ah, eh, non say nii instant. pour le moment. waaw pour le moment. mais da ngaa war di takk say sa masque tamit. déjà man foog ma calculer ndax distance bi ñu wax ne dañ ko war a euh, respecter ñu ngi ko respecter ma ak yow. Euh, bu ko defee déet sama diggante yow koy ëpp na 4 mètres. Ah, nañ dem 5 mètres bee vitre bi na ci diggante bi. oustaz. àdduna wóoru léegi nañ dem 5 mètres ba 10 mètres sax. ay kaw bu ko defee masque bi tamit. oustaz ngay sàlloo di ko di ko di ko kii. waaw masque bi waaw man man kii am naa ko waaw. yaay yaay xam nga nan la def kër ga. waaw. ba affaire bi tàmbalee ba tey. Hmm. sama yaay daal këram la def euh, gis nga euh, siwo yooyu noonu siwo yooyu noonu ñu koy def ñuy def pour raxasu. raxasu loxo. moom daal la ne jëpp ci buntu kër gi. léegi nag ak ànd ak sata la léegi boo dee dugg ci kër gi koo mënta doon nag. da nga da nga da nga jël satala gi xoola ak ak ak kii euh, savon yooyu noonu kii. raxasu ba set doog a dugg ci biir kër gi. wax na dëgg booy génn it nga raxasuwaat rek daal day génn. waaw loolu baax na daal la ko sama yaay defee bu ma ko fekkee nag ci ëtt ba. Mhm. mu nga toog xoolal mu nga jël téléphone ba kat xool ñaan ñaan bu nu koy yónnee rek muy kii. amin amin amin ma ne ko yaay yow itam ma ne ko yaay booy yaay booy yow ñu ngi lay yónnee ay ñaan rek mu ne ñaan yëpp laay jël ndax dégg naa oustaz Maodo Faye mu ne xoola bu nu xeeb ñaan yi déedéet déggal loolu wax na dëgg de xam xam nga xam nga xam nga hmm. gannaaw gannaaw gannaaw taxawoom hmm. wax naa ko fii ba tey dafa amul lu dul ñaan hmm. te yàlla moom mi ngi fi gis nga nit lu mu weddi weddi weddi weddi weddi yàlla am na at fi mu toll am na ñu gëmul yàlla di waaye bu xelloo rek nag yaay waxat lu garaaw tamit eh, am nañu gëm ak a bari Sénégal gii am na fi ñoo xam ne ñii gëmuñu yàlla man maa la ko wax. Oustaz yaa ngi di waxaat lu gën a garaaw encore parce que xam nga lu tax gëm yàlla dafa nekk mbir moo xam ne mii boo koy defee dangay sabab lu naam day am ci lu muy tegu waaye yàlla sunu borom day dogal itam nga wóolu ko ba mu wér na la yow say acte da koy wone ndax gëm yàlla lu lu attention lu jafe la yombul de. nu lu tax mu jafe. Oustaz ilaa xam nga boo gëmee yàlla. du lu lay li lay fëkk dootul bari maanaam doo doo perturbé wu doo am xosnu ci sa ci sa ci sa ci sa xol maanaam rien ne te perturbe parce que da am imaan te yàlla nee na ñi nga xam ne dañu am imaan gu wér ci man dara du leen déranger dara mun leen a fëkk dara mun leen a tiital Sénégal ñaata nit ñoo fi nekk ci stress ñaata nit moom la seen xol di jax-jaxee parce que place bi yàlla waroon a nekk àddinaa fa ne te àddina bu nekkee ci sa xol lu ñëw nga daw waaw. Euh, daw euh, gi daw gi du da ngay samp saw xel waaye da nga dund ci dund gu teey. waaw euh, oustaz nga baal ma mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci réseau sociaux yi Facebook yeeg yooyu nañ ñu baal ñu déglu bu baax li ngay wax nga ne yàlla bu nekkul ci sa xol. waaw lu ñëw dalay lay gaaw a da lay gaaw a da gaaw a tiital gis nga yàlla bu la bu la teelee sa cummikaay ni mbër yi di def ci làmb ji bu ñu ñëwee ba teg seen ay butéel ak yu demee noonu boo ko dénkee yàlla ci waxin. boo ko dénkee yàlla yow njàqare njàqare dootul nekkati ci yow mais loolu di niveau niveau la boo xam ne bii yegg fa yombul li yegg fa parce que am na koo xam ne kii lu ñëw dana ca def farataam ba mat sëkk waaye yàlla lay jiital moom lay mujjal te dara du ko perturber mais am na koo xam ne kii day julli di woor di nekk ci jàkk ji te problème bu ndaw moo koy perturbé. dëgg loolu problème bu ndaw mu jaxas. mais mais de oustaz ma jox la firne bu gën a bu gën a kii xam nga euh, Pape Diouf d'ailleurs naa la jox léegi ndax euh, xam naa ne di nga ci waxee. Euh, jox yi kàddu incha allah Pape Diouf mii fi dëddoo na ki démb. Mhm. boo duggee ci réseaux sociaux yi ku ne ngay partagé. ku ne ngi partagé Pape Diouf. Mhm. wante. bu fekkee ne yow. loolu mhm. mënula euh, renseigner saa su ne boo gisee euh, dee taxaw. Mhm. nga partager ay photo kii ay message kii kenn xamul. Mhm. te soxor dañul ci yow. waaw iñaan dañul ci yow. ah yéene nit ki lu bon dañul ci yow. ah bu boobaa kon euh, kon dee beeg hommage yeeg message yeeg photo yi oustaz loolu lu mu yi waaw xam nga xam nga nit bu xamul boppam li li li ma li ma li ma sëñ Samb Bousso di faral di fàttali ne ma sëriñ si Ahmed Tidiane si nee na. tumuranke mi ngi tàmbalee ci riire sa bopp nit bu xamul boppam rek dugg na ci tumuranke te li ngay wax nii ku xam boppam du ko def ku xam boppam dëgg xam fi la yàlla taaj xam yaay kan doo soxore kenn doo xalaatal kenn lu ñaaw ndax doomu aadama ci ci dereetam yàlla def ci bind égoïsme maanaam nit ci boppam dafa am al ananiya bu nekk ci moom dafa yaakaar ne moom lu baax lu ne awalan nag ci jiitu ba noppi luy ñëw door a ñëw gis nga tey maa maag yow bu ñu àndoon photo ak ak ak Assane ak beneen journaliste bu mu mën a doon bu ñu portélé woo ba pare bu bu carte wi génnee bu ma la joxee carte wi koy njëkk a xool. ah oustaz laaj nga ma lu garaaw de. Ah, bu ngeen àndee portélé wu yi ak Assane ak yow. Ah, ak man ma nekk ci biir. ak ñeneen ak ñeneen. waaye yow yaa ngi ci biir groupe bi. maa ngi ci biir groupe. léegi nag photo bi génn na ah, sama merci beaucoup. gis nga gis nga gis nga ni ma la jàngal al anaaniya bi nekk ci nit. Mm, mm, mm, doomu aadama lu lenn lu ne. boppam a cay boppam la cay jiital. mais d'accord nañ ci loolu ndax nit day bëgg boppam. mais nag mais ci biir jiital gi nag nga ànd ci xel. loo bëgg bëgg bëgg sa bopp. waaw nga ànd cee xel nag. da ngay defee ni Nicolas mii daf may gêner. waaw waaw waaw fàtte nga yàlla. waaw waaw léegi nag fàtte gi nga fàtte yàlla ba fab Nicolas teg ko ci sa kanam defe ne yow lu ñëw rek nga daw defe ne Nicolas la te Nicolas yëgul sax li ngay def. déggal loolu <laughs> dégg wax ji toppatoowul sax yow li ngay def boo keroogee nag yow kooku jëmm jooju moom. Mm. iman bi ma doon wax nekkatul ci moom ndax ku ya wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu yàlla nee na ku ma téel sa cumbukaay looy tiitati mm. que boo tiitee rek yàlla newu fi ah dégg naa. Euh, mag bu baax mu naan ma ku am kuddu doo lakk. wa wa mais justement comme wolof moo ne ku am kuddu doo lakk waaw hmm. ku am kuddu yàlla nag. parce que kuddu yàlla pour nga yegg fa. Hmm, hmm. il faut nga am yenn niveau yi. waaw le Seydi Hadji Malick daan na daan na toll ci niveau yoo xam ne yii dafa doon wax naan man am naa ñeneen ñoo xam ni mën naa communiquer ak ñoom parce que fi fi seen fi seen fi seen degré yëg-yëg toll. man yëg naa lu ëpp loolu. est-ce que xam nga kooku moom. fab na yàlla teg ko ci kanamam fab yàlla teg ko ci gannaawam. léegi nag yàlla bu nekkee sa ximaaya. Mm-hmm. sa imaaya ximaaya maanaam. Mm-hmm. yow commentaire dootu la tardel. déedéet discours dootu la tardel. déedéet fait divers dootu la tardel. parce que réseaux sociaux yi. Mm. symbole la ci sous développement. déggal loolu maa la ko wax. <laughs> mais c'est clair. mais wax ji dañ koy dégg ci biir mais ça doit être un sous-développement intellectuel mais ça devrait être comme ça. <laughs> <laughs> Attention, parlons français. waaw mais malheureusement. <laughs> mais c'est ça. kon eh, mbokk yi soxor ak iñaan mhm. ak yeneen nit yu bon. c'est le sous-développement xam ngeen seen bopp yéen a. c'est le sous-développement mental sous-développement mental. ko amee. kon nag faju ji leen. waaw merci moo tax man la am na ci ñooñ dañ leen war yóbbu fànn parce que am na ci gis nga mais toog ci toog ci machine defoo lu dul lu dul tooñ ak xasteeg saagaak reeloo nit ñi yow yaay kan. déggal loolu oustaz <laughs> sant naa la gërëm naa la sous développement mental baaxul. non baaxul euh, oustaz. Euh, bañ du reer jàmm wallaahi. ah xam loolu ci yow. boo reer rek musiba la. <laughs> est-ce euh, tey ministère de la santé sànq ñu ngi defaat en direct le point euh, ci fu ñu toll ci coronavirus gi wallaay ndeysaan euh, gannaaw bi ñu seetloo donc lii fi xew naka démb di Pape Diouf mi nga xam ne malheureusement ni ñu mhm. ko waxee woon ci Manu Dibango fan yi ñu weesu noonu lañ ko waxee ci kilifa googee nga xam ne ci wàllu sport def na ci lu bëree bëree bëri mhm. ba sànq maa ngi jottaliwaat mbokk auditeurs yi interview bi mu mujjee def te jagleel ko Sud FM seen rajo mhm. bi ñu demee ministère action sociale tey Euh, li ñu fa jëlee mooy am nañ encore ay cas yu bees concernant euh, coronavirus gi am nañ quinze nouveaux cas d' accord euh, bu ñu seetloo ca ministère de la santé et de l' sociale li ñu déclaré mooy ne quinze nouveaux cas yooyu dafa ñëw dolleeku ci li fi ne woon naka démb mhm. donc le Sénégal à ce jour contre compte cent quatre vingt dix cas déclarés positifs téeméer ak juróom-ñeent fukk voilà donc quarante cinq maanaam ci wolof ñaar téeméer yi manqué fukk waaw keñ quarante cinq guerre yi. waaw yu wér. waaw ak. Euh, cent quarante waaw cent quarante cinq sous traitement. maanaam téeméer ak ñeent fukk ak juróom yooyu ñu ngi leen di nemmeeku. seenu yaram ok ok bàyyi donc euh, boobu ba léegi naam euh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu faj gi. ñu ngay def jéego yu am solo nag yu am solo macha allah c'est wante terewul it saa bu nuy xayma dañuy gis ne mbir yi day gën di yéeg saa su ne di gën di yéeg te am na fu nuy toll waxoon naa la ko fii bu nu fa àggee dana gën a compliqué ndax euh, amuñu yenn jumtukaay yi donte suñu ay fajkat macha allah waaye nag am na fu nu fu nuy toll foo xam ne dafay compliqué lool ci ñoom. waaw xam nga bala maa tàmbali sax dafa am loo xam ne fokk ma sërxal ko. Mhm. sërxal gi mooy nit ñi ñoom ñëpp léegi ànd nañu yaakaar naa ne ci dogal yi nga xamee ne ak directive yi nga xamee ne waa Kër Docteur joxe nañ ko. Mhm. mooy raxas loxo yi booy tisali xam nga rek tomb yi li ñuy waxee daal bañ a nuyoo bañ a dem ci mbooloo yi nangam ak nangam confiné wu. Mm-hmm. léegi nag xam nga lu ñu war a jàmpal. Mm-hmm. ndimbal yi waaye sëñ bi ah luy jot jot na di. kon lii jot jot na. waaw gannaaw de. gannaaw de waaw. xëy na nag tey ndimbal li ci askan wi. waaw kay ah, dafa war a teew. dafa war a dafa war a ñëw. ndax ba nuy dégg millions yi kii milliards boobu ak léegi. Ah, ndimbal li nag daa war a génn. daa war a génn parce que xam nga dafa war a xëy na nag tey ci conseil des ministres bi xëy na ah, bu fa génne waaw xëy na am lu fa rot hmm. parce que sénégalais yi nag li li li li li Maître Kéba Mbaye waxoon ne les sénégalais sont ak agsi nañ fa nag tey fokk nag loolat fokk nag ñu ñu ñu ñu wax ko hmm. parce que nag gis nga dëgg moom li ma lay faral di wax rek bu jotee wax ko ak fum fum fu mu fu mu mën a nekk parce que kilifa gi wax na ñu ngi koy taaxeer lu njort na na it dana ko def waaye fii nu toll nii ñu doon jaay cere ci mbedd yi nga xam ni bala vingt heures wala vingt heures mooy nu génn anañu gisatuñu leen ña nga toog ci seen i kër ñii dawal taxi yi gis nga àll àll nee na seen gis nga rajo yi ñu doon annonceurs yi gis nga àll nee na seen ndaw eh, ñeneen ñi àll nee na seen ndaw. boutique yi tëj nañu boutique yi tëj nañu. maanaam kii daan ñëw. waaw lam doon ñëw mënatu ko. waa ki daan joxe mburu defatu ko. waaw léegi ñëpp ñenn ñu confiné nañ leen. dem ba dugg naa ci boutique bi ma jox ko mille francs ma ne ko kii jënd li may jënd yëpp mu xool ubbi bi nee ma amuma fi benn weccet. waaw léegi nag ma ne ko lu tax mu ne ci suba ak léegi jaay ma fi tous. waa léegi ñu ne ci àll bi nag. waaw waxatuma la ñi nekk ci àll bi. ok waxatuma la ak maire bi nga xam ne mu ngi fii ci ci ci boppu koñ bi. waaw di jaay gerte. yaakaar ci gerte googu muy jaar rek. te mën te mën a suturloo sutural euh, njabootam. mënatu ko ah te mënatu ko. marché yi nga xam ne nee nañ ràpp genn wàll. marché yi am ñu problème. waaw léegi nag. taxi yi am nañu problème. léegi nag lu ne kóot. lu ne ah? jon na koy faj. lu ne kot nga ne. lu ne jon rek. mooy mooy rapide rapide. kon ni kon ni mbëri la génn waaw lekk kay kooku moom nañ ko wax ba pare. parce que boobu ba léegi it. waaw euh, oustaz dëgg yàlla ñu ngay wax faj bi ñu ngay wax feebar bi. d'accord nañ ci affaire yi ngi avancé loolu yëpp ñu ngi def sensibilisation maximum. waaw sénégalais yi de plus en plus ñu ngi gis ne franchement. Ah. ñu ngi leen di sensibiliser te ñu ngi conscient ci yenn euh, yi ñu war a euh, def. waaye nag. Ah. noo ko waxee nga ne lu ne kot lu ne jot koy faj te jot jot na luy jot jot gannaaw dee ah kay xam nga loolu moom nañ ko fàttaliwaat parce que tamit bu ñuy wax nag dañ ciy boole nag yi nga xam ne pàttali mi te it ñanuy jox la loolee ñuy joxe ñamiy jaar ci seeni loxoot nañ nekk ci loxo yu jub moo xam ceeb la moo xam sukkër la moo xam warga la te gis nga ni ko Nicolas am na loo xam lii ku ko lekk doo nit déedéet maa la ko wax lu ñëpp bokk nga ni ko fuuf ñaar lay joxe dootoo wér wala dootoo nekk ci jàmm waaw moo tax ñiy séddale mm. nañu xam li ñuy séddale mooy lan te ñam war a yegg ci ñoom it mu yegg ci ñoom oustaz euh, am na ay jamono euh, fan yi ñu weesu waxoon naa la fii lu am solo neewoon naa la man euh, produit antiseptique yi yi nga xam ne sax dañoo dem ba homologué ay prix waki yooyu wala masque yeeg yooyu dama nee woon man dama gis ne ci sama yaakaar loolu kat war nañ ko mën a distribuer gratuitement man loolu laa waxoon ca njëlbeen te ca laa toll ba tey dama ah yaakaar ne ah fi ñu toll ak mbir mi fi mu toll sawaay euh, sénégalais yi rawatina yaa ngi koy tudd ñenn ñi nga xam ne seen seen kanam naka lañ koy waxee. seen loxo jotul seen loxo jotul seen merci nga leen jëndaloo ay ay pàkku kii euh, nu mu tuddati antiseptique ak wala ay masque ak yooyu noonu dafay garaaw donc jamono yii ñu toll jeunes yi. mais mais mais les les les jeunes les jeunes étudiants la yi ñu yi ñu yóbbu ñu ku ne dem ci àll ba wala ku ne dem sa kër wala whatever. Mhm. ñu leen woon encadrer ah euh, de de telle sorte que euh, dinañ dinañ euh, wàcc ci tali bi dem ci ci ci ci ci askan wi rawatina ci ñi ko gën a ite jox leen i masque gratuitement. jox leen ni produit antiseptique gratuitement. Mhm. jox leen ni ndimbal gratuitement moo xam saaku ceeb yi ngay tudd. ak dëwlin yi ngay tudd. te nit yi di ko soxla. Mhm. te ñu war a dem ci lu ñu naan confinement de plus en plus on en parle euh, suma directeur mu ngi ma kaa fàttali naka démb nee na ma ñu ngay wax confinement confinement waaye nag. na ngeen xalaat ñi nga xam ne seen loxo encore une fois naka nga ko waxee. jotul seen ginnaaw jotul seen ginnaaw. waaw xam nga yéen ngeen wax confinement mais est-ce que yéen a ngi xalaat ki nga xam ne saa waay euh, dafa dafa dafa yaakaar ci lu ndaw ngir ngir mën a suturaal boppam suturaal njabootam. waaw mais attends ñooñu nag mooy ndimbal yi ngay wax fii nag la amee solo dañu ko war a génnee. baral fasal ko baral ko baral waaw kay. xam nga xam nga xam nga euh, àddina euh, Nicolas dafa am yu baree bari yoo xam yàlla. ñaare bu ko tegee ci sa loxo rek mu ngi lay jox ay indicateur yoo xam ni war nga cee jàng lu bare bari wax laa la fii ba tey na la cette maladie la daf ñu war a servir d'indicateur pour rectifier une trajectoire wax naa ko ba tey waaye nit ñi dañu ma déglu. Mhm. waaw maladie bi mhm. daf ñu war a servir d'indicateur pour rectifier une trajectoire. Mhm. yaa ngi dégg bu baax a baax. ñu xoolaat sunu bopp. beneen bi ci tegu te waroon jàpp euh, oustaz nga baal ma jamono yi ñu toll. ñun ñëpp danoo waroon a jàppoo. mais ñun ñëpp danoo war a waroon a àndandoo. mais avant kay li ñu naan xàccandoo dóorandoo. mais loolu am na instant bii nii dañu ko waroon sentir nekkul ku nekk toog sa fi nga toog. di def sa li ngay def ñun ñëpp danoo war a waroon a àndandoo xàccandoo dóorandoo nga xam ne lépp. ku ne loolu ci askan wi da koy yëg à tous les niveaux. loolu loolu mais xaajaloo bi moo baaxul ci dara. loolu xaajaloo bi sax defe naa ne léegi presque euh, daanaka amatul solo ndax defe naa Sénégal ñëpp tey autour des autorités comme ci nekk ci kaw muy euh, njiitu réew mi ñëpp topp nañ ci directive yi yaakaar naa ne ak ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu karange gi Aly Ngouille Ndiaye yaakaar naa ne yëf yi léegi ñoom ñëpp euh, loolu ànd nañ ci ndax yàlla bu la joxee fukk daf laa séddale ndax benn bu yàlla doy na ku ne wax naa ko fii ba tey léegi nag gis nga marché yi li ma li may wax léegi ne mën nañ cee tirer ay leçons ci ci li ñu dal gis nga marché yi su ma doon su ma su ma doon conseiller par exemple euh, euh, ki yore wàllu kaaraange gi wala je sais pas bu yore wàllu commerce ak yu demee noonu wala ñu yore wàllu cet gi damay wax ne désormais dañ fi daal di tàmbalee nag léegi marché yépp ci Sénégal ah semaine bu nekk daañu ko tëj deux fois wala trois fois wala 18 heures fu mu jotee ti tëj leen marché yi mairie yi euh, ASP yi ñooñu seen bopp ñu dem raxas marché parce que dañuy fay ay juuti lu ñu fiy def benn marché nga mën a toog douze lu mat quatre ans kenn mësu koo raxas. wala ñu désinfecté ko. mais justement loolu nag war nañ fee jëlee moo tax man la il faut ñu tirer ay leçons ci coronavirus bi bu mm. paree ñu xool yi nga xam ne ay jàppandal lay doon beneen bi ci tegu eh, gis nga gis nga Nicolas yàlla du du du du du caaxaan. waaw nit nit mooy def ak doyadi mais sunu borom dafay wax ne woon naa leen ay misaal ay misaal ba tey dafa am benn waxkat bu wax ne. ci li nga doon wax léegi ci wàllu ñu nekk ci réseaux sociaux yeeg nangam ak nangam ak booloo gën war a boole. mu ne ak soxor geek yooyu. Mm-hmm. mu ne li kulli daa in dawaa un yustafaddu bihi ila alxamaqa nee na nee na jàngoro ju am ju nekk ju wàcc rek am na am na lu koy faj ba mu les lenn mooy borom yuur gu feesul bopp bu feesul moom kenn mënu ko fecc li la nga cay jàng mooy lan ban ban ta'wil nga ciy def moom mooy. yàlla bu wàccee dara du wàccewu ko par hasard nii rek euh, euh, bouleversement yi am ci àddina bi et cetera dafa am lu tax am na ay causes yu waral euh, coronavirus bi am su paree nañ ci tirer ay leçons leçons yooyu nag il faut que l'état soit fort nga xam ne bu keroogee day taper sur la table ah que eh man de léegi wopp ci jàng naa ni kat sénégalais bu ñu defee li ñu def nii les forces de sécurité de l'ordre et tout ça comme ñu génnee leen ñuy surveiller comme ni ñuy surveiller parce que ci suba bi ñuy ñëw ay 5 heures ngi dajee ak gendarme ngi dajee ak policiers yi may wax sama leen wax dëgg yàlla ñii mënuñu leen a fay parce que ñun jamono bi ñuy nelaw ñoom ñu ngi taxaw ci mbedd yi kon ñun d'abord de prime abor ñun ñoo leen war a gën a mën a respecter ba li ñu wax ñu fekk leen ci bu ñuy rombee xam ne ñun waa Sud FM la ñu bàyyi ñu dem kon loolu bu ci gouvernement bi tàppee gën a wéel loolu lépp dafay baax Macky Sall yaakaar naa ni fi mu toll nii ñépp li ñu tuddee union sacrée ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci gannaawam loi bi yaakaar naa ne assemblée nationale tey ci àllarba ji daañu dajee am loo xam ne lii daañu ko wéyal su ko rogee waaye nag buy jël buy jël loi ak lu ko loi bi mën a may na fàtte boppam man su ma ko doon conseil dama naan ko fàttal sa bopp ndax fi la yàlla di teg teg na la fi ba noppi ku dul yàlla mënu koo dindi léegi yow benn rôle nga am moom mooy askan wi nga am ci ñoom yërmande ba noppi tam looy def nga jiital leen ci su ko defee yërmande yàlla ñëw aaral la boppam na ko Cheikhul Khadim waxe woon mais su fekkente ne nag euh, euh, sa intérêt individuel danga ko def mu nekk ci kanam yàlla bu keroogee lam la mayoon bu ko neexee nag mu xëpp ci suuf mm-hmm. wa man arada an zikri fa inna lahu mahishatan dankan te loolu li koy indi mooy fàtte fi nu yàlla tegoon démb toujours moo wax ko fii ci mbir yu demee noonu mm-hmm. en tout cas Sénégal yàlla ngi leen di dimbali ñi ngi def liggéey boo xam ne bii bu mucc ayib la bakkan mm. nag moom yàlla bu waree dem day dem mm-hmm. waaw ndax wax naa la fii ne la ay nama tekkoonu yudrikumul mawt yàlla nee na fu ngeen mën a ne mm. danaa yónni sama ndaw mu rocci roogi mm-hmm. mais nag médecin yi gouvernement bi secteur bu nekk la la ca concerné yaa ngi def la nga xam ne moom nga man askan yëpp dajaloo nañ topp gis nga vingt bu jotee. Mhm. ko mbedd mi comme comme ay armeel seen mhm. ndaw lay def. waaw loolu nag. Mhm. bu gouvernement bi jaare foofu tiré ci ay leçons marché yi aussi mën na bu fi jógee ñu ñu beneen méthode. bu ko fi ma bëgg sax ñu euh, loolu lépp euh, ñëpp xam na nañu ko danaa ci dellu siwaat mais fi ma bëgg surtout ñu ñu ñu accentuer wu tey mooy euh, wàllu ndimbal googu nga wax mu amal solo lool askan wi jamono yii ñu toll. Hmm. parce que lu ñu mënte wax tamit jamono yii askan wi boo leen boo leen boo wàccee waxtaan ak ñoom li ñu lay wax mooy tar na peeru tar boo xam ne yéen ak ñoo wax jël leen seen matukaay ok ñu ngi ci def leen lii ok ñu ngi ci waaye ndimbali kañ lay dikk ndax euh, réew mi métti na peeru métti boo xam ne jamono ji euh, yaa ngi koy wax nee nga ndakaaru la ñu ne muy métti waxatuma la ak ñiy nekk biir Sénégal. te mu gën a métteeti ci ñoom kon nañu si bàyyi yi ak ñi nga xam ne ñoo yore ay horticulture bi ak yu demee noonu. léegi nit ñi dajalootuñu. Mm. gisante wuñu mais am na sama masse gi nga xam ne dépense bi lañ koy lijjanti. bu fekkente ne yi. maanaam taqale ko ni <laughs> na waar <laughs> euh, euh, mag ñi ñu bàyyi leen xel ñoom itam ah, eh, mag ñi war a dem defi ay consultation jamono yi na xam nga euh, coronavirus la ñuy wax waaye yeneen feebar yaa ngi fi ba tey. Ah, am na ci ay mag yoo xam ne dañuy consultation ci yenn cabinet wala hôpitaux yi wala kii dajaloo boobu ñuy bañ mag ñee ngi koy dajaloo di xaar ay heure ay waxtoo waxtu waxtu ngir ñu mën leen consulter ki yu demee noonu euh, mbir mi doy na waar trop xam nga euh, vraiment nañu jàppalante quoi yàlla li mu am da koo def ci nit ñi hmm. li mu am na kenn du jeex mukk waaye lu bari da koo def ci doomu aadama yi ndax yàlla du wàcc sol am mbubam naan def naa kii mais ci nit ñi ci yàlla ñi mu bind créature yi nii ci la yàlla di wane boppam ci la ci nga mën a amee lu ne ci nga mën a ñàkkee lu ne bari na ku la romb tey jii euh, woyof mbubu lool ne man fekk ne euh, am na noo doon doxalanteeg digganteeg moomam allahumaam bu duggee ci yow rek yàlla defal sa répp waaw donc loolu yonent bi jàngale na ko alxuraan jàngale na ko mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk te xam bu baax a baax a baax fan la degré yi di toll dañ koy faral di jàngale ndimbal li gis nga ndimbal li lu ñu lu ci président gën a gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw parce que ñun ñi nga xam ne fu ne la ñuy dugg di gis nit ñi di jokkoo ak ñoom téléphone ah. xam nañ ne réew mi nag wax dëgg yàlla gaa yi sonn nañ mais la preuve euh, jamono yi euh, serveur bi 88 628 98 98 am na ko ne mën nañ ko bàyyi ndax yoratul ñaar dërëm <laughs> moo te gaa yi ngi woote de xam naa ne góorgóorlu rek ñuy wax nii xam naa ku ci ne bëgg bëgg woote joxe sa participation ne président euh, ndimbal li na bar euh, réseaux sociaux yi moom waxaale bu ma leen maa ngi jot message fu ne gars yi di ma wo euh, di ma yónnee message naan ma fi ngeen teg seen baaraam foofu la na ndimbal li bar mais surtout dans la banlieue et tout parce que en tout cas bon fépp la ba affaire bi di méttee léegi nag li ci des mooy ñu déglu kilifa yi allo allo asalaamaaleykum waaleykum salaam alhaaji Mor Malick sama tooma sama xarit ah kay bismillah waaw kii mooy taalibe Adama Ndione maa liggéey si dëkk mbir na parka. ayca bisimilah. mais El Hadj Maodo. gars bi ñu defee ba sama classe bi danañ sonn rek. déet waay. ah nga man bala maa joxe dépense il faut ma ma liggéey ba dóor ba ba miir jëm ma maa waay maa waay maa waay orange a ne. ah déet waay. ah dana métti ci ñun de. di ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla jëlee si na mu gën a gaawee rek si barke Seydina Mouhamed comme comme ni ma ko waxee si saa saa rek si sa émission bi. mais El Hadj Maodo. te dama bëgg dem ci euh, ci alxuraan ci ci xaj bi. Mm-hmm. fa ayal ɗum wona fof qultu istahfiru rabbakum o innahu kana hafaran mm-hmm. yursilu sama aleykum midrara wo yumditkum bi amwalin wa banina woye woye jahan lakum jannati woye jahan lakum anharan ha ah, waaw ma laaj Maodo dëgg la de xam nga li may euh, conseil président la république mm. ndimbal li maanaam nañ suspensionné ceeb bi mm. ceeb bu doon jëriñ vingt mille francs su Maodo Malick amee sept mille cinq cent wala dix mille francs diwlin gi bu jër wéemit bu moo bu alaaj Maodo fi amee sept mille francs mënu ko am mais Maodo hmm. bi nga ko joxee politiciens yi nii laa wax dinaa wootaa sa émission comme comme lu mel ni nga jël almet tataasi euh, xam nga mbopp ah, bu baax ah, may baykat nga naan xam nga mbopp waaw xam nga mbopp waaw da mel ni nga jël almet nga jël almet kaskui mbopp mbopp mi rek mu tàkk na waar lu ma bi ko joxee politiciens kenn di si jot dinaa wootaa sa émission wala wala wax sa xalaat sama sama sëriñ alaaj Adama Ndione wax la ne kenn jot si. jërëjëf d'accord bu bu demee si àll bi nit ñaa ngi sonn sonn kenn mënut dem fenn àll bi nit ñaa ngi am na. am ci ah, sëb jafe na Moro. day na mhm. amuloo morom rek parce que auditeurs yi dañoo dañu dañu bari ci ligne bi mbokk mi dafa jàng ay alxuraan bu doy waar. Mhm. léegi li mu doon wax nee na am na foofu buñ fa tolloo. nañu jublu ci yàlla te jéggulu ko. te man li ngeen di wax boobu ba tey nag. <laughs> oustaz man d'accorduma de. Ah. ay nañu wàññi lii nañu wàññi lee nañu maye <laughs> instant bii nii xoolal. en ah, gratuité ah, gratuité. nañu bàyyi <laughs> ay wàññi ñu wàññi ci lii lii deux lay jar xaaral ma wàññi ci fukki dërëm. gratuité comme am nay chef d'état yoo xam ne daanaka porte à porte lañ def ñoom. Ah, allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ok 88 628. 98 98 gratuité boobu may wax. xam nga lépp dañ ko organiser. mooy majaanan waaw waaw te xam nga ne du du mën a du mën a wéy. mais au moins jamono yi ñu toll. ak weer bi ñu ne. ak weer bi ci topp xam na defe naa am na yoo xam ne bu ñu ko defoon gratuit nag oustaz nag yu bëri dina dinañu xaw a kii sax. waaw xam nga <laughs> xam nga état nag ngeen baal ma. xam nga état dafa am lu muy doxee noo xam ne nii ñu la ñuy xam ñun duñ ko xam ñun en tant que journaliste li ñu man mooy informer joxaale ay leçons yoo xam ne dafay éduquer et tout mais li nga wax nii jaadu woon na tey état bi ne lii daal moom tey jéggal naa def naa ah, scienceal li ma wax rek. waaw loolu jaadu na. scienceal rek li parce que am na loo xam ne ñi ngi koy def. Ah. te loola fa muy dugg lii ko gën a nekk farat. oustaz scienceal rek ñu xëyoon suba. Hmm. état bi ne euh, euh, euh, weer wi du ngeen fay location. état bi ne weer wi maa leen ameel ceeb ak dëwlin ak euh, meew ak suukar. waaw ci waxin wala yeneen ak yeneen mais science loolu rek oustaz. waaw loolu li wax ni dafa am solo de. waaw loolu trop ñu ngi sant yàlla baax. Nicolas a ngi ci jàmm. alhamdulilah. waaw baa euh, ñu ci quatre bi ñu rek ndax mooy suñu part. ay ca bokk. waaw na ñuy demee rek di am deux mille wala mille francs yu ñu ci duggee ndax dañuy participer bu naa amoon million wala de millions participer ko. ayca bis kon comme noonu foofu lañ toll nañ participer ci loolu rek. ayca bisimilah. waaw ñun euh, est-ce que affaire bi bu ñu yaakaar naa ne bu ñu fekkee ne fexe nañu est-ce que mënuñu koo wàññi benn yoon bu ñu ko wàññi woon dina dina dina dina baax ci peuple bi aussi. wàññi lan. loolu itam ci wàññi produit bi ñuy ñuy dundee. bu ñuy dundee ñu wàññi ko. prix ah alimentaire yi. yéen yéen voilà ah, yaakaar naa bu ñu ko wàññi woon moom ah, itam. d'accord d'accord dina nekk dina ndax ki daan jaay cent franc bu ko defee lu mu daan jënd cent franc bu ko jëndee mën na fu jëndee fukki dërëm. waaw xam solo lool daal. d'accord. bon leneen li itam muy ñooñu ñuy wax ne ñoo war a demare waat seen société bi pour defar euh, garab yi ñuy kii garab yi ñuy fajoo. Ah. ñooñu dégg naa leen démb quoi mais nañu góorgóorlu rek fi nekk nii kenn ku ciy dugg rek dugal ngir yàlla rek te lépp loo ci mën nga def ko ndax il paraît que amoon nañu trois mois yooyu woon. léegi nag ñu bëgg a commencé waat xam nga comme nun la boo bëggee commencé waat ne nga léegi war nga liggéey il faut nga ji ma rattrapé li nga passé woon. mais lu ci te yàlla tax rek nañ ko participer. d'accord. jërëjëf jërëjëf waaw. boo wàññi boo wàññiwul jamono yi bu liy weesoo. dina tar nga bëgg ko nga bañ ko day metti non conséquence moom dina am conséquence économiquement dina tar lool. gannaaw conséquences yi boo wàññeek boo wàññiwul dana tar. Mhm. mayel <laughs> xam nga état li ma la wax léegi rek xam nga en matière d'économie état bi am nañ ay technicien am nañu leen di xalaatal. am nañ am nañ am nañ bon xëy na ñooñu après bu ñu toogee autour d'une table danañ xam lu ñuy génne salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. allo. Mhm, allo. waaw waaw waaw Maodo vraiment maa ngi rafet rafetlu sànq li nga résumé. Mhm. te loolu te loolu ci la adduna bi yëpp war a tënku sax. mooy lii dafa dafa war a daf ñu war a jàngal. Mhm. kenn ku nekk individuellement. Euh, réew mu nekk aussi. Mhm. d'abord par réew réew bu nekk ak état ba. mais wàcc si ba ci individuellement citoyen bu nekk. war nga am loo jàngat ci coronavirus bi. te suñu borom ni mu ko doxalee rek day xam ne. après xoolal boo xoolee Afrique. Euh, li ñu doon naan waaw nit ku ñuul la nangat nangat wax wax wax léegi boo xoolee par exemple ñi ñi ci ëpp ñi ci ñi ci faatu ay personnalité mhm. yoo xamante ne bi kenn du ko laam-laamee maanaam lu ñu siiw ci adduna bi ñu ñëpp xam mhm. donc loolu lépp su loolu lépp ay mbiri suñu borom la rek mhm. mbiri suñu borom mooy doxee noonu donc li nga wax noonu ne euh, war nañ ci amee ay jàngat tiiri ci ay leçons malheureusement nag ñun Sénégal fii on tire pas des leçons ndax xew yu bari jaar na fi mu mujj gi buñ tiire leçon yi du weesu une semaine deux semaines un mois deux mois. Mhm. mais lii dañ cee war a tiire leçon état bi. Mhm. ñu doxee te li ngeen wax léegi ci marché yi effectivement. Mhm. marché bu njëkk ba euh, dañ daan raxas marché yi. te loolu service d'hygiène ak sapeurs-pompiers ñoo ko def marché Tilène bii tëj nañ ko ba tàyyi ay euh, euh, samedi dima dima la dimanche. di kan dañ ko daan tëj. sapeurs ñëw ak seen GIE. ak seen seen. seen seen si carnet loolu nañ ko wéyal waaw ay jeu. Mhm. loolu loolu moo daan am. ci mhm. à l'époque. Mhm. yooyu nag dem nañ ba mujj gi léegi promiscuité bi am ci marché yeeg yëpp nga xamante ne bii lu ci nekk lu ne gis léegi ci marché bi. soit bi ñu réguler ko aussi. parce que jàpp naa ne aussi tey ji marché yi boo demee. Euh, daanaka rek euh, boo ko waxee sax dañ naan voilà kii nangam nangam mais fekk na boobu tey euh, ña war a yor marché yoo war a nekk marché yi nekkutuñ ci marché yi. ku nekk say loolu teg na ci sa bët. loolu am na léeg-léeg da nga naan sax da nga naan sax mais est-ce que du Sénégalais yi sax ñooy étranger yi fi léegi ci marché marché boo dem loolu ngay gis alors donc du wax waxuñu ko def pour dara mais c'est un constat qu'on a fait. d'accord mburu mi ñu interdit aussi tamit euh, loolu na na continuer wéy bu ñu xaar rek bu kii di jeexee ñu delluwaat ko ci ci parce que condition yi yi nga xam moom la ñuy transporter mburu ci ay galam. nga gis welo boo xamee dina chargé dina yore fukki kii ku ne sa seen poussière ngelaw leeg kii bi ñëw teg ko ci boutique bi boutique bi di dagg di jaay di def di laal xaalis di nangam nangam alors yooyu yëpp donc ay jàngat la yoo xamante ne bi état bi war nañ koy continuer mesure les mesures les mesures fortes là vraiment war nañ ko continuer état bi war na ko continuer d'accord li ci def mooy ñu vraiment ñun ñëpp ñu xam ne que ne état mënul lépp kon nag ñun suñu bopp lii ñu lii nga xamante ne bii accepté nañu li état bi wax mu jaaree ci waa service de santé yi nga xam ne ñun ñëpp a leen di jaajëfal. Mhm. nañu ko respecté te xam ne ndimbal la ci ci ñun ndimbal la ci ñoom ñi nga xamante ne bii ñoo ñuy dimbali. Mhm. ndax ñu ñuy dimbali buñ demee ba mënatuñoo dimbali kat kon musibaam. koor yàlla na ci yàlla misi leen war accord jërëjëf am na solo wax ji am na solo trop am na solo waaw mooy mooy ñi lay dimbali mooy waa santé mooy sécurité bi mooy mooy mooy mooy mooy ñëpp ñi nga xam ne am nañ aw laf boo xam ne wi danañ ko joué ci euh, nu ñuy def ba daaneel euh, covid 19 bi fi na toll état mënul lépp waaye état li mu mën bëri na de oustaz ah, kay waxtu wi jamono jii ñu toll la ngay wax boobu ba tey waroon na fekk nit yaa ngay distribuer koñ bu nekk nag laa wax. waaw rapide ñu ay saaku ceeb. ay diwlin ay suukar ak i meew kër gu ne. waaw xëy na xëy comme foofu la waroon tollu jamono yi. très bien loolu ko ànd naa ci yow à 100% mais comme njiitu réew mi waxoon ko. waaw te yaakaar naa ko def. loolu foofu la ñu war a toll. jamono yi waaw léegi waaw fan toll kon nañ ko baral. waaw nañ ko baral parce que conseil des ministres bi xëy na boo ak loi bi xëy na bu jàllee euh, xam naa ne dana jël xalimam pour pour pour pour doxal lu bari bari en gis nga gis nga. allo Nicolas oui allo. Euh, wa salaamaaleykum. salaam. waaw euh, Oustaz Maodo ñu ngi leen di ziar di nuyu si ay ayca. waaw man de li ma ci bëggoon wax rek mooy euh, maanaam ñun askan wi ñun ñoo warut xaar lu ñëw rek ñu bëgg cee xaar état. loo looloot man dëgg la. li ma li ma bëgg a wax mooy tey. Euh, maanaam sol Sénégal yi ci seen bopp ñoom ñoo war a wane ak solidarité ci seen biir. Mhm. boo booy xool tey maanaam ngay seetaan dëkk yi nga xam ne dëkk yi tubaab lañu wala yooyu. maanaam ñoom liñ mën ci solidarité ñu ngi koy defal ñu ngi koy defal ñu ngi koy mm. ñu ngi koy mm-hmm. maanaam tey dangay ngay dëkk ak koo xam ne màgget la mënta dem defi ay kursam nga ñëw fëgg ko ne ko lan ngay jënd mu defal la liste nga dem jëndal ko ko ñëw jox ko mm-hmm. ñun nag fi ñu toll mooy euh, tey am na bailleur yu bari ñu nekk ay kër yu dul jeex di ko loué mm-hmm. ñooñu nañ am yërmande tuuti comme dëkk bi lépp a taxaw maanaam àdduna bi feebar bi lépp la laal amul amut amut lenn loo xamante ne nii maanaam sa xel dem dem na ci rek. Mhm. te amul impact bu mu def ci feebar bi. Mhm. te maanaam te feebar bi amul impact bu mu def ci moom. Mhm. maanaam bu dee wàllu économie ñëpp xam nañ ne récession dina am. bu dee wàllu santé gis ngeen ni problème yi amee. wàllu amut lenn rek loo xam ne maanaam domaine la ci àdduna bi te te feebar bi impacté wu ko. donc ba tax na maanaam nguur gi d' accord ñoom ñoo ñu ñun lañ fi war a nekkal. mais dafa am loo xamante ne ni aussi sénégalais yi ñi nga xam ne nañ nañ dawal tuuti yërmande. parce que tey da am sa kër yor sa téeméeri immeuble fukki at ak juróom wala ñaar fukki at yaa ngi koy luy am nga ci ay centaine de millions voire des milliards yaa ngi dégg. Mhm. tey problème am na xëy na kenn ku ne la nga daan am amuloo ko. Mhm. mais ñooñu nañu nañu dawal yërmande comme feebar bi dafa dafa dafa dafa dafa sonal askan wi jamono ji mhm. kenn ku nekk nga doon luy ah man kat wax dëgg yàlla sëñ bi. Euh, ay at yaa ngi ci mën dulee mosoo am benn problème xeet yi mais nag comme jamono bi demee na nii. Mhm. Ah, na ah, <laughs> a def. <laughs> mais su ne maanaam sénégalais moo bëgg xaalis ba wax kenn ku ne sa bopp rek ngay xalaat. kenn la jekk. Mhm. ay milliards ci yow rek la jekk am am teranga ci la jekk. Mhm. mais nañ di dimbale doomu aadama yi nañ di nañ di suturaalante di jàppalante rasul yi wallaay ndeysaan dëgg la d'accord naa ak moom waaw cent pour cent cent pour cent euh, euh, même bu dul état état bu bu defulit euh, état ñu ngi koo déggal bu baax a baax ndax am na ay directives yu muy joxe mhm. askan wee ngi cay topp lu mu mën donc état kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ak moom mhm. ci ci ci ci début ba fin mhm. ndax ñoo loolu lépp ñoo ko bokk waaye état am na lu mu war a def tamit président président de la république ci boppam am na lu mu war a defal askan wi. loo xam ne ci moom moom moo koy jël initiative boppam. yaakaar naa dina ko def. j'espère que dina ko def. léegi nag lii euh, mbokk mi wax dafa am solo koñ bu nekkat am na koo xam ne suñu borom euh, am na am na lu mu la jagleel ci wàllu xéewal koñ boobu nga ne tey suñu borom jagleel la xéewal xam nga ñi fa ñi fa tane. bon maanaam bu mu ko mënee waxee noonu. Mhm. yow kat am na peeru ndimbal boo xam ne mën nga kaa def benn weer wala ñaari weer. booy dimbali ñoo xam ne ñu ngi ci soxla wala jafe-jafe saa defe naa loolu du la rey de. waaw boo boo boo boo gëmee yàlla dey man nga koo def sax lu ko ëpp wax ma sax man ci affaire location beeg locataire yooyu mais ndimbal ci boppam sax yàlla moo ñu ko njëkk a wax xam nga yàlla bi naan da nga def taxawoon daat ne dafay am birr ak taqwa ñaari baat yooyu mooy li mbokk mi wax léegi léegi gis nga boo ragalee yàlla. te mu nekk ci yow de laa wax nga xam ne àddina bi mu wóor na la yow nous sommes tous dafay jeex. li philosophie tuddee la tuddee la finitude du monde àddina bi day toll foo xam ne fii ñu nga jëm ca njeexital ga léegi te nit doomu aadama guddul fan aw fanam guddul ni ko sëñ Abdoulaye Mbacké daan waxee léegi nag bu fekkente ne yow xam nga ne li nga am bi nga juddoo def nga dem nga yaat amuloo ko te boo guddee fan sax mën ngaa dem ba dootoo ko amati wala boo ko amee dootu la jariñ dara ndax màggat hmm. la ngay dimbalee nit ñi lu mu lay wàññi bu ko defee day nekk ci yow ñaar hmm. dana la aar dina la sarax te ki nga dimbali ko hmm. yàlla xam na ni mën na la ñaanal ñaan goo xam ne gii ba ci say sët sa dara dootul taxawati ndax bett gi nga koy bett moo tax moo tax na ñu dimbalente yàlla ñu ko wax nañu jàppalante na yàllaa ñu ko wax nañu def solidarité yàllaa ñu ko wax nañu tuub yàlla na nañu fàtte suñu bopp ñi tane ñi tane parce que yàlla moo doxalee noonu yàlla moo fekk benn njuufeen wala benn ku sant seen mm. mu jox ko lu dul jeex mm. mu fekk Maodo Faye mu jox ko tuuti dëggal loolu loolu séddale yàlla la nañu fàtte suñu bopp waaye nag benn yàlla boobu doy na as gor. Hmm. bu la joxee fukk. Hmm. dafa laa séddale loo. dëggal loolu salaamaaleykum kon nañu séddale kon jërëjëf yaa oustaz Maodo di jégalu ci ñiy des ci serveur bi danoo takku lool waaye waaye te euh, waxtu bee ñu dab te publicité yaa ngi ñëw xabaar yaa ngi ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax nanu jàppalante dimbalante solidarité bi ni ñuy woote nanu doon loo xam ne danu koy gëm te fësal ko bu baax a baax rawatina jamono yi ñu toll tollootuñu ci wax ak i posté ay photo ki ay posté ay message ci Facebook toog fa nga toog danoo nekk ci jamono boo xam ne ku ne da ngaa yëngu def lu concret génération du concret <laughs> fii la amee solo oustaz Alioune Sall maa ngi lay ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ci réew mi ci bitim réew ni ngeen ko xamee ci àdduna si yëpp feebar bi nga xam ne moo fi nekk ñu ngi koy tuddee euh, corona. di feebar boo xam ne bii eh, tabarkàlla day ne ci dëkk bi rek kuy dem mu ne la dooma yóbbaale maanaam oto buy dem rek mu ne la dooma yóbbaale nit kuy dem mu ne la dooma yóbbaale ku ko nangoo yóbbaale rek yóbbaale ko ngir ñu bañ ko yóbbaale nag dégg ngeen li ci docteur yi wax ak ni nga xam ne ñooy saytu wàllu googu bu ko kenn yóbbaale rek bu kenn yóbbaalewul rek du dem fenn ndax moom amu ci tànk waaye nag ko am xel la ndax day yóbbaale ma su ko defee nit ñi ko yóbbaale ci réew yeeg oto yeeg ñoom seen yooyu nan moytu yooyu bu baax a baax baax waaye itam nag jàppale ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu googu nekk ci wàllu paj mi te di ci xalaat di ci xalaatal ñëpp xalaat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk na ci ku nekk def loxoom def ci yitteem def ci xalaatam def ci ay waxam def ci ay yeeteem kon daal ma waxaat ko rek buñ ko yóbbaalu rek du dem moom amul paas mënut a dugg ci oto mun a dugg avion waaye nag kuy dem la doo ma yóbbaale doo ma yóbbaale ji mooy boo raxasuwut mën naa ànd ak yow boo deful masque mën naa ànd ak yow kon nag boo kenn yóbbaale ci ñun jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo. jërëjëf euh, oustaz Alioune Sall sant ko gërëm ko bu baax a baax a baax ci euh, la ñuy ak moom saa su ne moom itam mu bokk ci élan de solidarité boobee di leen sant di leen gërëm yéen itam euh, di leen ñaanal bu baax a baax di ñaan aussi ànd bi ñu ànd solidariser wu oustaz Mbacke Sylla maa koy ziar bu baax a baax xam naa ne oustaz sunu élan de solidarité bi da nga ciy bu baax a baax ndax gis nañ ne yaa ngi ciy yëngu dèjà ah, am na solo bu baax ñu ngi koy sant di ko gërëm xam ne moo leen gunge woon seen émission leader ndekki li émission nante yi saa su ne leen boo nekkul nandite doo ko mën a fil a understand a kon tàlla leen loxo yi ñaan gàngoog bismillah on est jamais leader par hasard ci darajay xadis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa rahmaan ci daraja ay ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat sëkk may dund bu mat sëpp may nu ndox mu mat sëpp may nu teranga bu mat sëpp may nu jàmm ju mat sëpp may nu paj yaakaar mat sëpp may nu wér gu mat sëpp may nu wérle gu mat sëpp may nu dund gu mat sëpp may nu dundle gu mat sëpp yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla. Euh, wa salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw euh, Oustaz Maodo ñu ngi leen di ziar di nuyu si Nicolas. ayca. waaw man de li ma ci bëggoon wax rek mooy euh, maanaam ñun askan wi ñun ñoo warut xaar lu ñëw rek ñu bëgg cee xaar état. loo looloot man dëgg la. li ma li ma bëgg a wax mooy tey. Euh, maanaam sol Sénégal yi ci seen bopp ñoom ñoo war a wane ak solidarité ci seen biir. Mm-hmm. boo booy xool tey maanaam ngay seetaan dëkk yi nga xam ne dëkk yi tubaab lañ wala yooyu. maanaam ñoom liñ mën ci solidarité ñu ngi koy defal ñu ngi koy defal ñu ngi koy mm. ñu ngi koy mm-hmm. maanaam tey dangay ngay dëkk ak koo xam ne màgget la mënta dem defi ay kursam nga ñëw fëgg ko ne ko lan ngay jënd mu defal la liste nga dem jëndal ko ko ñëw jox ko mm-hmm. ñun nag fi ñu toll mooy euh, tey am na bailleur yu bari ñu nekk ay kër yu dul jeex di ko loué mm-hmm. ñooñu nañ am yërmande tuuti comme dëkk bi lépp a taxaw maanaam àdduna bi feebar bi lépp la laal amul amut amut lenn loo xamante ne nii maanaam sa xel dem dem na ci rek. Mhm. te amul impact bu mu def ci feebar bi. Mhm. te maanaam te feebar bi amul impact bu mu def ci moom. Mhm. maanaam bu dee wàllu économie ñëpp xam nañ ne récession dina am. bu dee wàllu santé gis ngeen ni problème yi amee. wàllu amut lenn rek loo xam ne maanaam domaine la ci àdduna bi te feebar bi impacté wu ko. donc ba tax na maanaam nguur gi d' accord ñoom ñoo ñu ñun lañ fi war a nekkal. mais dafa am loo xamante ne ni aussi yi ñi nga xam ne nañ nañ dawal tuuti yërmande. parce que tey da am sa kër yor sa téeméeri immeuble fukki at ak juróom wala ñaar fukki at yaa ngi koy luy am nga ci ay centaine de million voire des milliards yaa ngi dégg. Mhm. tey problème am na xëy na kenn ku ne la nga daan am amuloo ko. Mhm. mais ñooñu nañu nañu dawal yërmande comme feebar bi dafa dafa dafa dafa dafa sonal askan wi jamono ji mhm. kenn ku nekk nga doon luy ah man kat wax dëgg yàlla sëñ bi. Euh, ay at yaa ngi ci mën di mosoo am benn problème xeet yi mais nag comme jamono bi demee na nii. Mhm. weer wi wala weer woon jëm jéggal naa la ko. ah gratuité bi loolu na ñooñu ah, war a def. <laughs> mais su ne bëgg xaalis ba comme li nga doon wax tey kenn ku ne sa bopp rek ngay xalaat. kenn ku ne jàpp nga ne milliards ci yow rek la jekk. Mhm. ay milliards ci yow rek la jekk am am teranga ci yow rek la jekk. Mhm. mais nañ di dimbale doomu aadama yi nañ di nañ di suñu suturaalante di jàppalante. billaahi wa rasuuli. wallaay ndeysaan dëgg la d' accord naa ak moom. waaw 100 pour cent 100 pour euh, euh, même bu dul état état bu bu bu defulit euh, état kat ñu ngi koo déggal bu baax a baax ndax am na ay directives yu muy joxe. Mhm. askan wi ngi cay topp lu mu mën. donc état kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ak moom. Mhm. ci ci ci ci début ba fin. Mhm. ndax ñoo loolu lépp ñoo ko bokk. waaye état am na lu mu war a def tamit. président président de la république ci boppam am na lu mu war a defal. askan wi. loo xam ne ci moom moom moo koy jël initiative boppam. yaakaar naa dina ko def. j'espère que dina ko def. léegi nag lii euh, mbokk mi wax dafa am solo koñ bu nekkat am na koo xam ne suñu borom euh, am na am na lu mu la jagleel ci wàllu xéewal koñ boobu nga ne tey suñu borom jagleel la xéewal xam nga ñi fa ñi fa tane. bon maanaam bu mu ko mënee waxee noonu. Mhm. yow kat am na peeru ndimbal boo xam ne mën nga kaa def benn weer wala ñaari weer booy dimbali ñoo xam ne ñu ngi ci soxla wala jafe-jafe. oustaz defe naa loolu du la rey de. waaw boo boo boo boo gëmee yàlla day man nga koo def sax lu ko ëpp wax ma sax man ci affaire location beeg locataire ak yooyu mais ndimbal ci boppam sax yàlla moo ñu ko njëkk a wax xam nga yàlla bi naan da nga def taxawoon daat ne dafay am birr ak taq taqwa ñaari baat yooyu mooy li mbokk mi wax léegi léegi gis nga boo ragalee yàlla. te mu nekk ci yow de laa wax nga xam ne àddina bi mu wóor na la yow mu sommes tous de mortels dafay jeex. li philosophie tuddee la tuddee la finitude du monde àddina bi day toll foo xam ne fii ñu nga jëm ca njeexital ga léegi te nit doomu aadama guddul fan aw fanam guddul ni ko sëñ Abdoulaye Mbacké daan waxee léegi nag bu fekkente ne yow xam nga ne li nga am bi nga juddoo def nga dem nga yaat amuloo ko te boo guddee fan sax mën ngaa dem ba dootoo ko amati wala boo ko amee dootu la jariñ dara ndax màggat hmm. la ngay dimbalee nit ñi lu mu lay wàññi bu ko defee day nekk ci yow ñaar hmm. dana la aar dina la sarax te ki nga dimbali ko hmm. yàlla xam na ni mën na la ñaanal ñaan goo xam ne gii ba ci say sët sa dara dootul taxawati ndax bett gi nga koy bett moo tax moo tax na nañu dimbalante yàlla ñu ko wax nañu jàppalante na yàllaa ñu ko wax nañu def solidarité yàlla ñu ko wax na nañu tuub yàlla nañu fàtte suñu bopp ñi tane ñi tane parce que yàlla moo doxalee noonu yàlla moo fekk benn njuufeen wala benn ku sant seen mm. mu jox ko lu dul jeex mm. mu fekk Maodo Faye mu jox ko tuuti dëggal loolu loolu séddale yàlla la kon nañu suñu bopp waaye nag benn yàlla boobu doy na as gor. Hmm. bu la joxee fukk. Hmm. daf laa séddale loo. déggal loolu salaamaaleykum kon nañu séddale kon jërëjëf yaa oustaz Maodo di jégalu ci ñiy des ci serveur bi danoo takku lool waaye waaye te euh, waxtu bee ñu dab te publicité yaa ngi ñëw xabaar yaa ngi ñëw ñu ngi leen di san di leen gërëm bu baax a baax a baax nanu jàppalante dimbalante solidarité bi ni ñuy woote nanu doon loo xam ne danu koy gëm te fësal ko bu baax a baax rawatina jamono yi ñu toll tollootuñu ci wax ak i posté ay photo ki ay posté ay message ci Facebook toog fa toog danoo nekk ci jamono boo xam ne ku ne da a yëngu def lu concret génération du concret <laughs> fii la amee solo oustaz Alioune Sall maa ngi lay ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ci réew mi ci bitim réew ni ngeen ko xamee ci àdduna si yëpp feebar bi nga xam ne moo fi nekk ñu ngi koy tuddee euh, corona. di feebar boo xam ne bii eh, tabarkàlla day ne ci dëkk bi rek kuy dem mu ne la dooma yóbbaale maanaam oto buy dem rek mu ne la dooma yóbbaale nit kuy dem mu ne la dooma yóbbaale ku ko nangoo yóbbaale rek yóbbaale ko ngir ñu bañ ko yóbbaale nag dégg ngeen li ci docteur yi wax ak ni nga xam ne ñooy saytu wàllu googu bu ko kenn yóbbaale rek bu kenn yóbbaalewul rek du dem fenn ndax moom amu ci tànk waaye nag ko am xel la ndax day yóbbaale ma su ko defee nit ñi ko yóbbaale ci réew yeeg oto yeeg ñoom seen yooyu nan moytu yooyu baax a baax a baax waaye itam nag jàppale ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu googu nekk ci wàllu paj mi te di ci xalaat di ci xalaatal ñëpp xalaat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk na ci ku nekk def loxoom def ci yitteem def ci xalaatam def ci ay waxam def ci ay yeeteem kon daal ma waxaat ko rek buñ ko yóbbaalu rek du dem moom amul paas mun a dugg ci oto mun a dugg avion waaye nag kuy demul la doomu yóbbaale doo ma yóbbaale ji mooy boo raxasuwut mën naa ànd ak yow boo deful masque mën naa ànd ak yow kon nag boo kenn yóbbaale ci ñun jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo. jërëjëf euh, oustaz Alioune Sall sant ko gërëm ko bu baax a baax a baax ci euh, la ñuy sekk moom saa su ne moom itam mu bokk ci élan de solidarité boobee di leen sant di leen gërëm yéen itam euh, di leen ñaanal bu baax a baax di ñaan aussi ànd bi ñu ànd solidarisé wu oustaz Mbacke Sylla maa ngi koy ziar bu baax a baax xam naa ne oustaz sunu élan de solidarité bi da nga ciy sóobu bu baax a baax ndax gis nañ ne yaa ngi ciy yëngu dèjà ah, am na solo bu baax ñu ngi koy sant di ko gërëm xam ne moo leen gunge woon seen émission leader ndekki émission nante yi saa ma leen boo nekkul nandite doo ko mën a fil doo a understand du mën a dugg sa maayin kon tàllal leen loxo yi ñaan gàngoog bismillah on est jamais leader par hasard. ci darajay xadis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa rahmaan ci daraja ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat dund bu mat sëpp may nu ndox mu mat sëpp may nu teranga bu mat sëpp may nu jàmm ju mat sëkk may nu paj yaakaar ju mat sëkk may nu wér gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla